ne tey ñoo nekkoon suñu parrain des jours mu mel ne Albachirou Fall nekk responsable politique jeune Darou Khoudoss euh, sama frère Pape Maguette jaw nekk responsable de politique Darou euh, euh, Kër Niang nekk ci coalition benn Bokk Yaakaar sama mag sama xarit Serigne Mbacke Diaw moom it mu nekk responsable des jeunes nekk fii ci département bi di liggéey liggéey bu am solo Madakaw amoon initiative def benn tournoi. ñu sélectionné huit équipes yi nga xamante ne si ne ñoo ëpp doole ci département bi yàlla def euh, match yëpp ñu doon wut ay nit ñoo xam ne ay jeunes lañ nekk ci département bi ñu gën leen a xam ci développement ñu jagleel leen bis bi. journée tay bi nag ñu jagleeloon ko ñetti ndaw yi nga xamante ne si ne ñëpp ràññeeku nañ seen taxawaay ci département bi muy sëñ Mbacke jaw sama frère Pape Maguette Diaw euh, Bachirou Fall mi nga xam ne tey commission sport bu Marakaw fu mu toll moo ko fondi mu nekkoon ci diggante gonay tey ak ASC Teen bi yàlla def uh, suñ borom jox jox ndam gonay tey ci kaw ASC Teen bi ñu di ko ñaala ndam di jukko di wax rek juste liñ ci def li ko waral mooy uh, animé sportu département de Mbacké Madakaw nekk ci préparation fête dixième de activité ci biir dixième de activité yi ñu war a def 72 heures de activité yoo xamante ne si moom la ñu war a fête journée bi première journée bi ñu jàpp ci benn final muy tournoi bi nga xamante ne si tey moom la ñu nekk nii di ko di ko def yàlla def nag ci final bi tey journée bi moom jagle jagleeloon ci euh, ñetti responsable yi ñuy am kontante bu yaatoo yaatu Bachir am mbégteelu yaatu Pape Maguette Serigne ci ànd nga xam ne ñëw ngeen ànd ko ak mouvement Madakaw ci journée bi nga xamante ne si ne doon na ko def tey ci diggante gonay tey ak ASC Teen bi noonu lañ ko ñaane bëgg ko ànd ak ci samedi incha allah diggante renaissance mbooloo mi ba ci ñaari demi final yi nga xamante ngi leen di wax ci turu ne leen am nañ mbégte yaatu li tax nag ñu jox leen bis bi mooy taxawaay boo xam ne xam nañ ne am ngeen ko ci département bi parce que ñun ay ndaw lañ ngeen nekk ay ndaw nekk ci département bi ñu xam seen taxawaay ci département bi di politique kenn identifié wu leen ci wax ju ñaaw kenn identifié wu leen ci jëf ju ñaaw Madakaw di feete fukki atam ci biir fukki at ñu tànn ci benn journée boo xam ne journée sport la ba tax ñu tëgg benn tournoi mais chaque marché ñu jagleel ko ndaw ñi nga xam ne dañoo ànd ak ñoom nekk fi ci département bi kon daal ñu ngi leen di sant di rafetlu bi jàppale na daal dafa jox ngeen lu kawe suñu njortu ci ci bisu tay bi lu leen ñu mën a defal lu leen ñu mën a jox lu mu mën a doon li ngeen ñu defal mun leen ñu defal lu ko raw mooy dikk ànd ak ñun marché bi ba mu jeex tàkk kon defe naa ne loolu daal nañ ci mbégte lu yaatoo yaatoo euh, Fallou lii dafa rëy ci man parce que nekkoon naa fi jóge naa fi alors man ngeen am beneen pare bu man parce que bu doon ci koom-koom rek lañ ma choisir pour mu doon pare du ma ko doon waaye ci fulla ak fayda ak jàpp ne ngor goo xam ne ji naa ko am mouvement Marekaw loolu moo tax loolu nag leçon la boo xam ne ku nekk ci ñun war na rafetal fi mu nekk digganteem ak ñooñu pour ëllëg ndax kat bu fekkoon bu ma nekkee Marekaw dama fa waroon yaafuus wala ñàkk fayda wala nur na bokk di bokk bokkul te bokkuma kon tey lii lu mën a am kon may sant mouvement Marekaw di ko jaarale ci loxo Fallou Diop parce que su ma ko nuyuwee su ma ko tegee ci loxom mu jaarale ci waa Madakaw yëpp parce que dama fa bokk Ousmane mii suma xarit la suma nit la donc ñuy partage ci lu bari ci àdduna te naam tey am bokk fu féete ci politique. maa ngi Teranga Sénégal mi ngi Madakaw waaye xam nañ ni li ñu boole nekkatul si a apolitique li ma neex ci yëf yi nag ba neex ma ba nga xam ne ni tey dafa daw suma yaram mooy bàyyiwuñu ba ma jógee fi ñu may rendre hommage bi may dund lañu ma rendre hommage te loolu c'est très important te souvent réew mii li ñu gis mooy nit ki ñu rendre hommage. day faatu ñu koy dafa indi une minute de silence te Madakaw deful ma une minute waaye dafa ma rendre hommage ci bi may man kon su ma rendre hommage ci bi may mën jaadu na ma sant leen sant leen ci turu docteur Abdoulaye Niane parce que suñ ma suñ ma tuddee tudd ko suñ ma tuddee tudd Teranga waaye également suñ ma tuddee tudd Daara Khoudoss kon su ma ñëwee tey dama fee dama fee am ñaari ñetti mbubb yu ma indaale dama indaale dama indaale mbubu Madakaw fii laa bokk indaale mbuum Teranga Sénégal fi nga xam ne parti bi nga xam ne ci lay milité bokk ci ànd ak nawle indaale drapeau Daara Khoudoss ci lii laa indaale tey kon wax dëgg yàlla maa ngi sant communicateur traditionnel bi suñu xaadim mii suma xarit la fu ma nekk fekk na ma fa moom sëñ Matar Mbuub maa ngi koy sant parce que politique boolewuñu ci ay tànk bi laa màggee lu bari ma xam ko ci moom parce que bokk daje nañ fu bokk ak fii ñoo bokk ko gox buñu dëkk parce que it moom it bu am bu gisoon ci man ak yaa fu sax la du ñëw fii tey yàlla xam ne Touba la jógee ngir sama jëm te loolu maa ngi koy seedal nit yi xam ne nit ko am valeur la nit ko ful la ci boppam euh, maa ngi sant ñëpp di nuyu sama mbokk yi nga xam ne ñoom lañ jàggale bés bi mooy sëñ Mbàkke Pam Maguette nga xam ne ñoom ñii kenn ku nekk si ñoom lu ma séq ak kon ñoom it également maa ngi leen sant di leen ndokkale parce que bés la boo xam ne leen ko jagle dama lay war a ndokkale kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan réussite parce que Marakaw bi ñuy organisé open national taekwondo j'étais le le le président du commission des sports man maa ko jiite woon. bi ñu organisé gala de lutte di fi indi Modou Lo man maa ko jiite woon bi ñuy organisé fii drapeau de lutte di ko turé Madakaw man maa ko indi woon Dembaka bi ñuy organisé tournoi bii mooy deuxième édition bi je crois su ma jumul mat maa ko woon. kon su Madakaw defee li tey vraiment c'est un acte à loo xam ne ni am na fu tabale mais am fu mu yem sant naa leen gërëm naa leen cër bi ngeen ma jox. daye bi ngeen ma jox jàpp naa ne man tollu ma noonu kon également sant naa leen gërëm naa leen am seen fay di nuyu Matar bu baax di ko sant moom it. di wax ne daal lii nii rafetlu nañ ko trop am na solo macha allah te du ñu yem tamit ak yéen fii ndax yaakaar naa dinañ ànd ak yéen match yëpp ba ci final bi ba mu jeex bépp match bu ci war a amati bu soobee yàlla dinañ ñëw fas yéene teewe ko kon daal li nga xam ne si moom la Basirou Fall wax. ñun moom la ñuy wax ay ndaw la nekk ci département de Mbacké di def politique politique bi ñuy def ko intérêt personnel wala dara dañ koy def kat pour xam ne ëllëg sunu ëllëgu réew ñun ay jeunes lan bokk nañ si ñi nga xam ne si ñoo war a tabax réew mi ëllëg loolu moo tax ñu ñëw dugg ci politique di xool fi nga xam ne sunu askan seen kàddu jotewu fa te ñun sunu kàddu jote fa ñu mën a dem di fa taataan di leen indil di leen taxaw ci yu bëree bëri kon tey jii lu mel nii heure bu nu ko taxawalee bu ñu ci woowee dañuy bàyyi lépp loo xam ne si tamit jàpp nañ ko ñu ñëw ànd ko ak yéen teewe ko ci nga xam ne itam yàlla dogal na ne xalaat bi ci moom la jógee muy Galas Diop Madakaw dafay nit koo nga xam ne man du ma du ma du taaye ci di ko wax nit bu fekkente ne sa waajur muy Baye Mass Diop mënuñu woon def dara ci dëkk bii ca tudduñ ko ci booba Touba communauté rurale la du ñuy def rek danañ ko ca bokk boole tey boo juddoo nekk ak say nawle dem ba lu mel noonu àgg say mbagg nga jël engagement yi romb fa sa baay tolloon ndax sa papa ci commune bi la woon yow département bi da nga fee takk écharpe doon vice président conseil départemental di wax ci turu département bi lépp lu def ci département bi ñu tudd la ca kon sa jaan wàcc na loolu loolu soo ko xamee ak soo ko xamul jàppal ne sa jaan wàcc na man nag sama yéene ci yow wax naa la ko ci kër wax naa la ko ci néeg wax naa la ko ci mbedd ñi nga àndal ñëpp xam nañ ko dama ne la man fii taxawuma gis la ngay wax ci turu département bi moo xam ma dégg la ci rajo moo xam ma gis la ci télé kontaanuma te bis bu may kontaan dëgg-dëgg mooy bis bu ma la gisee assemblée nationale nga takk écharpe Sénégal taxaw biir hémicycle ba di wax ci turu département bi sur boobaa dinaa xam ne wax dëgg yàlla galas même buñ bokkul gis-gis politique it yéene jama amoon ci yow man àgg na mooy nga taxaw foofa di ko def ca loolu laa lay yéene lii nag ñu ànd ak suñu nawle ñun ñëpp ñuy ay frère suñu coloration politique bokkut ku ci nekk am nga foofu féete ñun ñëpp ñu ànd nga tànn ñu ñu mën a bokk ab jotaay duñ ñooronte duñ ñàkk nuyoonte kenn ku nekk di wax lu baax ci morom ji ab leçon la boo nga xam ne war nañ koo lancer fépp gis ko parce que ñàkk bokk gis-gis ci politique mi ngi mel ne ñàkk bokk gis-gis ci diine mi ngi mel ne ñàkk bokk gis-gis ci tarixa teewut bu julli jotee ñi bokk diine ñooy bokk heure bu ne julli donte bokk ñu tarixa ñooy bokk it nun jëm ñooy bokk it ràkk yi ne julli waxtu wu ne ak ràkk yi ñu koy jullee kon dañoo mel ne dañoo war a tàgg taat ci suñu bopp ci suñu xol xam ne lépp loo nga xam ne ñu ngi koy def rek dañ koo bëgg def ngir dolli suñu société waaye li ñu doon yàlla def na ko ci ñun ba